Cheikh Mouhamadou Kabir Faye Cheikh Mouhamadou Mamoun nekk nañ ne ñu lépp nga teg aju mag ak maa ngi ko Kabir Faye français franc franc bi seddale ko mu dem am lu mu desal ñëw na ko dama joxe lépp suba li muy accidenté waaw ñoom dégg nañ ko dem ak waaw Kabir Faye dem joxe lépp benn fekk sa wala ñu accident dara xew nee nañ daal ci biir oto ba sas barab do dégg dégg kenn ñetu bàyyi waay donc ko téye waaw téye ñu dellu si ci jàmm dara xew ba dul yett ma léegi laa ñu bëri naa dégg ngeen sëñ Maodo ñàkk la n'est-ce pas sëriñ bi wax naa léegi ne quatorze millions cent mille francs la joxe ma ne Cheikh Ibrahim maa woon boo ko defee ne ko dama nga seet si xaalis bi ñu yore jaay bi war a añee lépp ci waa kër dem am lu mu desal mu ñëw mu ne ko dama jox lépp suba dañuy accidenté dawul lu day waar dara xewul lu yegg bi ci biir oto bi oustaz Barham Diop bàyyi na ne sëriñ Mamour nee na bàyyi na ne nañ ne ko gën a oto bi ñu fekk oustaz Barham Diop ci biir oto bi mu ne ko sëriñ bi baax na ci njaboot bi la ko daw ko yàgg ba xew dañuy ci biir Màkka tey ci lañ dégg yëpp ñettu sëriñ bi rek la gis mu doon dara dara dara xew suba di muy accident mais lu jafe te dara xew man li may laaj laaj ma jëma man damay laaj al musaddaquuna wala musaddaqaati ñi gëm bëgg mucc